julli julli dafa laaj waaj julli dafa laaj waaj euh, waajum julli nodd nañu bismillah nga fëkk satala daw dugg ci wanag génn jàpp waaxu wuti jàkka ja am ñaareelu rakka boo kabaree bu fekkee ni borom xel mu rafet nga boo kabaree ba noy yi ba watul di nga yëg lu génn. jullit du wàcc cinq minutes. bismillah ci jàkk ji. fëkk satala dem tuur ndox. te day góor di noyyi yor poftan boo noyyee mu. mu dagg dugg ci poftan bi. nga continuer tuur ndox. plus sa awra bi ngay téye. boo ko téyaa li génn ci yow dafa niin. bu diwlin ji jiitoo ci sa loxo boo ci sottee ndox dafay daw sobe sa du dañ tooyalal sa loxo bala ngay laal sa awra diwlin tegu ci ndox bu jiitoo diw tegu ci ndox tegu ci kawam dafay li génn ci yow dafa nga téye sa awra mu jiitu ci diw ta ndox saw baal ma xàq ci sobe ci tak ci sobe ci dafa niin boo ci sottee ndox du dañ ndax sa trait yi nekk ci sa loxo bu ci xasee ba dugg boo ko raxasee ak saabu saabu du dindi sobe ndox jiitu ba sa loxo tooy bu ci diw tegoo boo ci sottee ndox mu dem moo gën def ko ba pare jël suuf naan nii raxas ba pare wala nga naan léegi ci jullit cib jullit juwadi googu dem ci wanag day yëri teg jiital ba jub wanag wi inni aoudu bika min al xubusi wal xabaisi sa tànku càmmoñ dugg ca wanag wa amatuloo ci ñett ñett sa kàddu mu nekk ci buntu kër gi te kii ñëw bëtam leerul nga wax ko wala takk nga sab xaj jazakallahu ana xayran yor yor nga sa xaj xaj bi fàtte nga ko takk te kii dugg si kilifa la nga ni ko am na lu ñuy wax cheme bu nekk ci buntu kër gi boo duggee mu song la wala boog kii dugg si dafa mel ni sagar ja loxo bi toogul tey bàyyi nga noonu say bagage nga ni ko ba sama bag sama tëju ma ko bagage yaa ngi ci kaw xoolal ma ko maa ngi ñëw Serigne <laughs> Serigne Baye Mansour ñu fi jóge léegi nag mais moom nee ma man sëriñ maa ndoowu ma ah, naa damay daal di të pare rek fekk la fa tëj sama nekk ñu la xaar tegal la fii si biti ñu la xaar ma bu fekkee ni da nga tuur ndox tey góor góor ak jigéen dañuy wuute góor dafa yor paftan buy yi rek muy dog bu dogee dafa dugg ci paftan li ñu wax ni dañu wax ni boo paree da nga jóg séqi ay jéego séqi ay jéego dox yi ratt sa bopp ba yëg ni set nga bu fekkee ni wistu nga ba pare génn wala bu fekkee da nga dem duus yàlla mooy jàngale sees yi léegi nii ngay tooge boo toogee nii sa siddi di dafay day lemu siddi di dafay lemu boo demee ginnaaw kër mën nga jóg siwu ba siwu ba pare génn yëgaat ni soxla nga sa bopp pareeguloo siddi ya la war a génn génnul kon lislaam daf ni la sukkandikul ci sa wetu càmmooñ tàllal sa biir mu génn waaye boo ci bàyyee bu yàggee mu mu def la seere waay <laughs> waay lislaam <laughs> boo wéeroo noonu ngay waxee jigéen ji wasin ni muy tëj bi ci palaat bi nga naan ko puus noonu la lislaam di wax ni nga dimbale sa bopp nga dimbale sa bopp puus mu génn set waaye dugg ci wanag commencé jàpp jëlaat sat la dugg ci wanag ak yuwa di wu ko ak yuwa di passé wu ko boo paree nag nga raxas sa loxo boo ko raxasee nag bàkkaar boo ci defoon ci sa diggante ak sa borom jéggal na ko waaye bul yóotooti leneen boo gallax ndikoo doo fen doo jëw doo reetaane doo biiñ doo <laughs> nit ñi nga xam ne reye nit Eh, yooyu sharia ci jëm lépp sharia ko leeral boo sarax ndikoo rëy boo dee sëlmu nga yéenu ni yaa ngi raxas sa kanam waaye maa ngi yéenu ni tisbaar laay julli feeg tàkkusaan dootuma fi xool ayiba kenn naa jublu ci sama ayiba yi seppi ko par benn benn ba mu set ah mooy jàpp de xoolal la ci yàlla digle maa yuridu llahu li yajala alaykum min xarajin walakin ña mais ana ñaama bi ñuy jàpp di gën di ñàkk te yàlla ni ku jàpp doo ñàkk ñuy jàpp di gën di ñàkk mbokk yi xëy jàpp doo am dépense tisbaar nga jàpp doo am takkusaan nga jàpp doo am tibis nga jàpp doo am gay nga jàpp doo am mais am na lu ñu tilimal jigéen ñaa ngi nii bu ma xiifoon tey ñëw ci man ne man dama xiif ñu ne ay si indi ndab indi ndab ma indi ndab mu tibb ba kudd waaj ci noor bi fees yëkkati ko téye loxoom lu xew ndab laa moom am na fayda ba ci ndab lu tilim suñu xol yi tilim yàlla di ci def loolu sot soccu yonent bi dafa wax ni kuy jàpp war ngaa socc bu ma ragalul woon sonal sama xeet dana leen digal ñuy soccu ci julli gu nekk mais soccu soccu mais soccu kuy soccu lay wax kuy socc lay wax mais da ngay sax sa socc rek du sotti mais xamu leen ni soccu soccu dafay bégloo yàlla mardatun li rab boo dee soccu boo signé yàlla dañ bu noonu am bañ am na bañ dama naan dañ naan yàlla signe na nga soccu dafay mais mu ngi nii dama noonu naa ko bind waaye dama koy yóbbu comme que mokkalu leen ko اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه نسوك دي ييني يا نجي سوك نسوك دي يا نجي سوك بو اللهم بارك لي فيه اللهم اجعل تسويكي مثابة لي وتمحيصا لذنوبي وسببا برضاك يا سيدي ويا مولاي طهرني من الخطايا ونقلي من الدنس والعيوب نسوك دي سوك lii waaw dama koy wan rek après moom mu jaar delloo ma ko mais gis nga léegi ñu jóg masu teyal ma jàpp naa ba pare xool leen sëriñ bi yéen ñëpp ni muy jàngale jàppee ba pare ma ñëw taxaw bi ma taxawé ci kanamu kan la taxaw bo taxaw bu sëriñ Mansour ñewon tay may taxaw ci kanam misal rek xam nga dañuy wax ni talibé ci kanamu sëriñ dafay mel ni né ci kanamu yàlla kon mooy mel ci sa kanamu sëriñ nga wara a mel ni nuuru doo yëngu do xef mais amama allah nooy def Oh, waaw kanamu borom nooy def comme que sa kanamu sëriñ muy nit ni yow da nga war a mel ni néew bu ñuy sang mais amaamallaahi nooy def ci sa kanamu borom nooy mel nit ni yow ñu ne la melal nit néew mais amaamallaahi nooy def njéewu bu kooku ci kanamu nit ngay mel ni kanamu nit rek amaama <laughs> rabbika nooy mel léegi nga taxaw gis ngeen mbokk yi am na julli yoo xam ni waxuma ne du dëgg mais nañ ci def attention xayrul umur yi awsatuha taxawaayu julli jarul nga naan tànk yi ñalañ da ngay sonn day metti sa yaxi ndigg yii ubbeeku gu betti gi baaxul mais lu tax lu tax ñu ne ubbil sa tànk lu tax góor gi ñu ne ko ubbil sa tànk góor gi ñu ne ubbil sa tànk dañu bañ ay awraam ci ay cëram tuuse awraam xelam di dem ci bànneex kon kañ ngalañ ji betti na seytaane mën na laa suufal di la defal nii rek bu dee jigéen na tëj tànkam pour ay yéreem bañ a laal awraam xelam di dem ci bànneex nga yëkkati sa loxo ni yàlla loxo baa ngi ni ni loxo bi widde noonu la xol bi widde kenn nekku ci nga taxaw nag ci lan kuy julli ci kaw lan lay taxaw sajaan doo julli ci der doo julli foo jullee jàkka ja jàkka yu jullee jàkka kenn si julli jàkka sàll tànt la tax salle de ñoo bokk yam salle de taxu la dem aéroport lu la taxa a dem aéroport. bol bi avion bi. kon jëkk sa jëm ji fi la bokk consigné ko yobal sa ruu mu dem ci yàlla nga dee ak moom moo nga taxaw di gis iliman allahu akbar. la ilaha illallah. boo taxawee rek ci jàkka ji jam ci jàkka ji nit ñi fi nekk ngay gis kumboot di dox ci yaramam. yàlla bu mu nekk sa kanam wala mat wala teeñ nga siggi xool ko gis teeñ bi nooy def. waaw bañ ma ñëw ci yow da ngay moytu. boo sëggee nag gisatoo matt bi ci waa ji nekk ci sa kanam sa xel dootul nekk ci julli gi. sama buy tabax. ba ak ba am di di brique dans lu muy def. safa safa lay def bu taxawee ñu di ko jox birig fan la xel mi di nekk. baña <laughs> te julli julli mooy sa pont bi ngay jàllee siraat ëllëg da nga war a taxaw yàllaa ngi ci sa kanam yonent bi nee na ida kunta tusalli salli salaata muwaddia ndax xamoo balaa julli gee dem àgg di nga dee wala déet kon jullit julli kuy tàggoo ni julli gi mooy sa mujj julli ci sa àdduna kon ni ko def na mu war a de sa bët dootul nekk ci mihrab bi génnal mihrab bi nga dem waa ji way ngeen ko léegi bu leen way yaa qiblati fi salaati ida waqaftu usalli kooku nee na dañ ko ne mu cey sama penku bu ma taxawee du julli ñu ne ko kuy sa penku mu ne yàlla mooy sama penku dara taxul sama digganteeg sama borom waaye boo jàppee mihrab bi rek def ko muy sa penku boo dëngee defa ni bu mihrab bi dëngee nga def nii jëlal sa xol jox ko yàlla nga yëkkati sa loxo nag yéene bàyyi ba mu wàcc xatta taatadila qaiman attum aninatu wal ictidalu min alsalaati dal ak cër yu dem ba wàcc ci julli la bokk nga jàng ba mu bu nekk fa nag na nii taxawaay ba kàbbar bi yéene bi farata la taxawaay farata la kabarul ihram farata la fatiha farata la njàng ma ngay jàng farata la yii yëpp boo ci bàyyi danga war a seet noo koy def nga wàcce sa loxo jàng fatiha ba pare jàng saar saar sunna la taxawaay ba sunna la nga jàng ko ba pare nag wuti sa oom nga ubbi sa tànk waaye am na ñoo xam ne ñaan yonent bi bu dee julli poqataan yi da daan feeñ xanaa yonent bi amul yére xanaa yiwul woon ba tax leen ubbi seen i poqataan bay kur pañante ci biir jàkka ji lii dafay xatal jàkka nga ràcc nga ràcc sa loxo yi sa oom nga wax nga dem ba nii dem ba mu wóor na ni sa digg ginnaaw genn mu taaju buñ ci sottee ndox du dem wala yax bi jóg buñ ci sottee ndox mu dem ci kanam dem ci ginnaaw waaye yàlla kenn du ko juutu nii nii juutu yàlla yàlla kenn du ko juutu nga dem ba nga xam ni xatta tatna inna raakian nga dem ba nga xam ni sa lépp dal na sa noor dara dogut ngay soog di wax subhana rabbi al azim wa bihamdihi ñetti yoon juróom benn yoon fukki yoon nga daal di ne sami allahu liman hamida boo ne sami allahu liman hamida bu dee kenn nga danga cee teg rabbana wa laka alhamdu حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه <laughs> الله اكبر الله اكبر الله اكبر ngeen xam ne julli foor na tere indal ali bu ko def ni séq buy cof dugub mawla ka yow ragalal gis nga julli sénégal yonent bi daf ko daan jànge jàngale te ñun ku jóg rek da nga dem julli allah ku jóg rek dem julli julli dañ ko war jàngale imam dañ doon ñaan pour jàkk yi ngeen di ci jànge kayfiyatu salaat naka la ñuy julle waaye sëgg ak siggi di julli xam ngeen dañ ko wax ni bu ko def comme coxum ginaar mais est-ce que xotti ngeen dagu ginaar fekk ci suuf déedéet kooku yàkkamtiwul ay porte pied ndànk bi jóge ci kaw gis dogu yàpp ci suuf day ñëw ba juutu mais dafay fëkk kii mais bu ko def comme cofu ginaar sàcc dañuy wax ni sàcc sàcc gi ci yéex mooy kii kii sàcc ay ràkk kii sàcc ay ruko seen maam ngeen daal ma xàq maa ngi koy jël misaal waaye nit ki mu miin rek lay mën jël misaal nee na di nga gis mag mu julli ba leex ya weex tàll te fekk musta mutal benn ràkk bay jaw waliyaasu billah boo ci jógee nga wuti suuf xam nga wuti suuf itam waxuñu la nga mel ni kuy wuti kuy kuy rulaat di wuti point xam nga ñuy def bac moom xam nañu loolu waxuñu la it nga mel ni kuy sóobu dex di fee ñar rek tàllal sa tànk di ñor sa ndig déedéet dañu la sa yii yii bu mu laalanteeg yii mais tërtaat li ci jàkk ji ba ni ñareet ba kañ bu ko defee nag nga topp julli gi nga yonent bi wax ni umirtu an asjuda ala sabaati adumin dañ ma digal may sujjóot ci juróom-ñaari yax ñaari loxo yi jëbi ak bakkan bi ñaari bëtu oom yi ñaari baara cati baaraam yi waaye da ngay koo xam ki doo xam nu muy jullee bu dee jigéen la jigéen nañ dellu ci ibnu ashir bu dee julli bu leneen feeñee lu dul lii ak xar kanamam ak suufu tànk yi dafay baamu julli buy fii feeñee bu fii feeñee lu mën a feeñ bu waxtu wa defee day baamu julli oh dafay baamu julli ga day julliwaat dafay bu dara feeñee ci ay cëram dafay julliwaat ñu yépp ci julli gi la bokk bu defee nag was jut was jut yàlla fu mu nekk ci kaw wala ci suuf ah, mu ne ci xol la nekk waaw moo tax foofu su jot da nga dëpp sa jë ci suuf waaye joxal yàlla sa xol mu ommatal la boppam waaw السجود الحقيقي ليس انطواء امام الله سبحانه وتعالى باي واخني سجود دغ دغ دو موي nga lemu ci sa kanam borom joxol yalla sa xol mu defaral la ko ba mu set waccal bul reuy waaw nit kuy julli du reuy bu ko defee nag nga topp noonu topp noonu mënoon nañ ko julli comme ni ñu ko daan defee waaye xataayu place bi ak waxtu jot bu ko defee nag dañu wax ni ku bàyyi benn waxtu benn man taraka li salatan waxida laqiyani yawma alqiyamati wa ana alayhi ghadban ku ma bàyyil benn julli bi nga dajeeg man ëllëg ma mer lool waaye dañuy wax ni ku bàyyi benn julli bu tibbee tibb bàyyi benn julli gi mooy sàggane ko ba waxtu weesu boo ko sàgganee ba waxtu weesu boo tibbee jëmale ko ci sa jëmmiñ tibba danaan la laanaka allah yaa aduwa allahi taakulu rizqa allahi wala tuaddi faraidahu yal na la yàlla rëbb noonu la tibbi di wax yow noonu yàlla bi yaa ngi lekk wërsëgu yàlla te doo matale waxtoom boo dee génn sa néeg boo dee sol sa mbubb mbubb mi dafa lay wax ni bu dul woon ak li ma rus yàlla kon na xaw yi sa awra boo dee génn néeg ba néeg bi def naan la yàlla bu la yàlla delloo si fa nga jëm yàlla boo foofu jëm ak yiw yàlla boo fekk sa njaboot ci jàmm ku bàyyi benn julli kenn du ko nuyu kenn du lekkandoog moom kenn du naanandoog moom kenn du ànd ak moom mu ngi ci mu ngi ci téere yi nañu ko seeti waxuma lii xooleen sunu maam Sëriñ nee na ku bàyyi benn julli mu ngi ci tësawudu siraar jël leen ko ngeen jàng ko mu ngi ci tësawudu siraar nee na ku sàggane benn julli boo dee bu la kenn sang bu la kenn sang bu la kenn jullee bu ñu yóbbu jàkka ja bu ñu yóbbu ci sëgi jullit yi mën nga suul ca àll ba nga wan yàlla ginnaaw ndax bëggoo koo jox sa kanam lii mu nga ca lii mu nga ca mu nga ca sawul sa kon du ñu julli du ñu woor fu ñu ko teg seen di sant leen ko fan nañ ko teg téere yaa ngi fi nit ñaa koy jàng fan lañ ko teg la mu waxoon waaja rek ni dafa gag maa salakakum fi saqar mu ne dafa gag foofu taxaw taxaw ni gaa ñi gàggante ñu ne ko moom mbàkke nañ lañ lay gàggante mu ne gamaa gag gàggante leen ma ñu ne ko nan la lañ gàggante yow boo alquran ngi ci sa dënn te yaa ngi tiim alquran di ko jàng nuñ lay gàggante mu ne damaa gàg mu dëgg ku ma gàgganti ñu ne ko lam naku min al musallina walam nakku ñu fay mu nekkoon ne kon de Bamba génn na ci mu ne kon de Ahmadou génn na ci. ay responsabilité ngeen gis kon damay wax ni coow li bari na mais téere yi tas na avant coow li di am. nañ jaamu ji yàlla. defar sunum réew ndegam ay jullit lañu jullit bu